ak kaddu yi nga xamante ne ni Malal Talla yëkkati na ko jëmale ko ci candidature Bassirou Diomaye Faye ak Amath Thiam lam ca wax ñu dem dellusiwaat. mu am ay dossiers yoo xam dafa ubbeeku parce que bu ñu seetoo deux mois ci gannaaw procureur demandé woon na à ce que la jonction des procédures entre dossier de Diomaye ak dossier Ousmane Sonko mu jël dossier Diomaye Faye bi jëlee ko correctionnel parce que c'est un dossier correctionnel jëlee ko correctionnel andi ko criminel je pense que c'est pas anodin si sama jàngat c'est pas mm-hmm. anodin parce que nee dafa am ay faits nouveaux parce que léegi procédure bon loolu bu amee certes comme on dit c'est un de droit bi wax ne une personne bu la yoon di topp atteguy la tiju ce qu'on appelle la présomption d'innocence jusqu'à ce que tribunal boo xam ne moo compétent ñu àtte la ba ne yow li ñu lay toppee yaa ko def ba voie de recours jeex alors pas encore à ces stades mais dafa am benn bu ma jaaxal parce que hmm, dafa am ci disposition code électoral benn loi bu ne article bi code électoral mu ne certification qu'il point renvoyé de waxul ci L cent vingt et yaakaar naa mooy énumérer les les fournir. cent vingt cinq du code électoral daf le conseil constitutionnel pour s'assurer de la validité des candidats te validité ça beaucoup de choses c'est une disposition très élastique kii qui boo xam ne dafa jox conseil constitutionnel tout son pouvoir d'instruction d'interprétation et de requalification Diomaye est en prison il fait partie du bureau exécutif de PASTEF et un membre d'un bureau exécutif d'un parti dissous ne peut pas aller aux élections loolu leer na maintenant qu'est-ce qui empêche à est-ce que à l'intérieur de PASTEF ils n'ont pas un problème pour désigner quelqu'un et ça il faut aussi un courage politique pour le dire si c'est Guy Marius le jërëjëf Mamadou Diouf Alaaji dégg nga euh, Malal Talla ak ki nga xamante ne ni moo di Amath Thiam balaa ñuy ñëw nag ci Amath li mu wax Malal mi ngi laaj ne euh, est-ce que képp koo xam ne ni membre nga ci euh, parti bu nga xamante ni dañ ko dissoudre di nga am possibilité pour mën a nekk candidat. <laughs> non Malal kañ dana leer na dana lii moom leer mais après daf ne question lay laaj. Mm, waaw mun ko kon buy laaj question bu mu wax ne leer na. <laughs> Mm. lu leer moom. Hmm. boo xasee ba ne leer na rek question amatu fa. Hmm. kon laajatoo waaw loolu nag bon man dugal naa ko rek ci peut-être xamut euh, wax ci loo xamut parce que parents ay mën na indi euh, fakkastalu waaw parce que ñi tànn Bassirou Diomaye Faye euh, xam nañ droit xam nañ di leen yoon may tànn ñu pour caaxaan du dëkk kon bi ñuy tànn xool nañ ndax lu mën a ne la wala nekkut lu mën a ne moo tax bu nit jëlee temps tànn xam nga ñoom dañoo defe ne tànneef yi lu bett Ousmane Sonko la donc dañoo gëmut waxu Abbas Fall mi leen wax na leen lii yëpp Ousmane Sonko pare woon na ko depuis un an kon tànneef gu du tey. Mm-hmm. donc il faut que ñu xam ni am na loo xamante ni. xalaat nañ ci laataan ñu koy def te buñ ciy xalaat xam nañ ni fi ñu jëm mbirum yoon la te Pastef kenn du ko jéggal dara kenn du ko baal dara daañu saytu xool nu ñuy defee li nga xam ni d'abord moom la ñuy def waxuma ni nag ba tey ne Bassirou mooy candidat wu Pastef parce que Ousmane Sonko mën na lu ne lu ne lim mën moo ko indi ba tey fi mu ne mm-hmm. waaw parce que bu mënutoon lu ne nasaxal nañ ko bu yàgg leneen li nga xam ni waa ji wax na ko euh, mu ci conseil constitutionnel man damay jàpp ni conseil constitutionnel euh, jàpp naa ni bu fekkoonte ni hmm. euh, la ñu yaakaar mën na leen koo defal ay DG ak yooyu yëpp doo ko dégg jàpp naa ni conseil constitutionnel boobu même bu ëllëgee muy def ñoom li ñu bëgg mais jàpp naa ni wóoru leen waaw leen ndax lañ bëgg danañ ko am parce que sinon kon doon nañ jox Ousmane Sonko parrainage am bu yàgg mu continuer di doxal bañ jëm ba conseil constitutionnel ñu nasaxal ko mais moom si li mu sukkandiku mooy que ni charge yi ñu teg Ousmane Sonko ba tax tey jii nii mënuñu ko euh, jox euh, fiche parrainage charge yooyu lañ teg si Bassirou Diomaye Faye moo tax mu ni est-ce que bu ñu demee ba toll ci conseil constitutionnel war a euh, yamale mbir yi du jël responsabilité puisque Bassirou dañu koy jiiñ affaire u terrorisme. waaw xam nga jiiñ moom bu fekkee ne ku ñu jiiñ lekk mën nañ cee tënku ba nasaxal la. Mm. jiiñ jiiñ la rek. man mi mën naa laa jiiñ li ma la jiiñ est-ce que dëgg la est-ce que loolu dafa war a tax ñu ne yoon war naa tënku ci jiiñ gi ñu la jiiñ loolu lu woyof la lool woyof tool jiiñ loo xam ne bi ñi la jiiñ mënuñu koo prouver et pourtant am nañ temps depuis lors pour leeral ko pour prouver ko mënuñu ko prouver ñu ne ci ay tuuma kese ah non non tuuma moom yàgg na ci àddina waaye faw yoon def lu tax ba léegi benn action justice boo xamante ni bi lijjanti na mbirum Bassirou Diomaye fay ci liñ ko tuumaal noonu. Eh, newuñ ci kaso bi de. waaw ñu ngi ci kaso bi kaso bi moom nekk fa ñu téye la loolu moom yomb na waaye nag bu ñu demee ba ci li nga xamante ni bi ñoo yore yoon. mën naa demee ne xam nga damay jàpp ni Bassirou Diomaye fay euh, le fait ko Sonko tànn ko maanaam dafa jaxasewaat kart gi parce que defe naa ne Bassirou Diomaye fay li ko téye woon. Hmm. mooy Sonko. lii ñu la teg teg nañ la ko taqal nañ ko sa numéro 2 donc yow buñ la bloqué rek xalaatal keneen waaye bul xalaat kii. Hmm. comprend nga. loolu moo nekkoon li nga xamante ni bii mooy mbir mi moo tax defe nañ man ragal naa ni loolu bokk na ci li tax moo tax yeneen tuuma yi ñu tuumaal Sonko dal ci kawam nga xam ni tey Sonko bu doon def choix du choisir Bassirou Diomaye Faye. maanaam Basiru dañ ko doon galgal far Sonko tànnaat ko comprendre loolu mu tànnaat nag ki nga xam ni moo nekk ci kaso bi loolu jaxase na waat xel yi parce que prévoir ñu woon loolu jàppoon nañ ni ci ñi ci bitti parce que ñoom loolu lañ doon kii sax ci ñi ci bitti lañ jàppoon ni ñooñu la ñuy tànn far tànneef gi delluwaat ca prison ba loolu nag benn acte la boo xamante bi Sonko teg na ko mu nekk acte boo xamante bi acte politique la hmm. léegi nag li mu ci jublu hmm. moom moo xam mais ci jamono jii ñu nekk nii ma ji ma jigéen jamonoy stratégie la léegi nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau yi di wax ñu ci bari ñenn ñi dañ leen a yóbbante hmm. ñuy ñëw di jàllale ay message ñeneen ñi dañoo xamut di wax ñeneen ñi Euh, parce que fi mu toll nii moom kenn mënu la wax exactement pion yi Ousmane Sonko di teg ak pion yi Macky Sall di teg bu ci nekk li muy firi maanaam dañuy njort rek mais en tout cas Ousmane Sonko teg na benn pion boo xamante ni bii def na effet mm. waaw bi ko tegee ba mm. mooy coow ci penc bi mm. donc Ousmane Sonko wanewaat na foofu beneen mbir wane na ni mën naa dem gañe comme ni ma ko defee fal ay nit ñoo xamante ni bii man faluwuma mooy député yi ñu génn ànd ak mairie yi fal ay nit yoo xamante ni man maa leen fal mën naa nekk ci prison bi ba tey fal ku nekk ci kaso bi maanaam mi ngi wane yeneeni mbir yoo xamante ni bii te loolu defe naa ni président Macky Sall war na ci jàngat mm. xam ni maanaam dafa mel ni lii am am na ba pare waaw que ni le fait que mu ne Bassirou Diomaye Faye mm. discipline boobu nga xam ne bii seen parti am nañ ko ñëpp nangu koo topp loolu mbir la moo xam ne mbir mu extraordinaire la du ñuy nekk ci parti bi doo nga koy topp de mais sympathisants yi ñi nga xamante ni bii rek dañoo bëgg Ousmane hmm. ak ñenn ñi nga xamante ni bii tey euh, kii injustice bi ñu gis moom moo leen ci boole ñoo ñu topp ko maanaam ñi topp Basirou Diomaye Faye fi mu toll nii moo bari. parce que seen parti topp nañ ko. Hmm. sympathisants yi ñooy ñi ëpp ci réew bi hmm. topp nañ ko ñoom ak ñi nga xamante ne bi mooy waa majorité bi nga xamante ne bi nag ñoom Sénégal gu normal lañ bëgg réew mi di dox ci jàmm ak siraatal mustaqim ñoo ñuy wëlbati ko topp ko hmm. parce que da lay wóor ne la ni parrainage bi demee ni gis nga ñoo xamante ne bi daraay politique ñoru leen mais nag dañu jëm ci ay élection yoo xamante ne bi tey hmm. dafa am sénégalais yi luñ bëgg a wax te nañ ko wax. Oh, te it dafa am kuñ ciy déglu. alaaji euh, effort yi ñuy def nii yëpp est-ce que mënu leen jural ëllëg euh, euh, erreur parce que waa ji mi ngi koy souligner nee na suñ demee ba foofu conseil constitutionnel balidewul wul candidature kii di Bassirou Diomaye Faye bu boobaa delluwaat ginnaaw dootul mën a amati day fekk mu trop tard. déedéet <laughs> xam nga delluwaat ginnaaw. Mm. mooy nga xam nit ki. Mm. lan la prévoir fi mu toll nii moom xamut lu mu prévoir. moom de moom moo focus moom moo focus ci bakk Basirou Diomaye Faye ak sénégalais yi ñu wax ne topp leen Basirou Diomaye Faye ñu topp Basirou Diomaye fay mm. ak ñoom ñu jàkkaar ñoom ñoom fi mu doon ni ñoom ñoo jaxasoo mm. mais soo ko jaxasoo déet mm. te Sonko mbir bi du mbirum dellu ginnaaw de bu ñu demee ba toll ci vote ba ñu valider candidat man nee naa la ba saa yu ñu valider candidat yi ba pare Macky Sall erreur bi mu mën a def mu nekk erreur bi gën a rëy mooy mu bañ a bàyyi Ousmane Sonko bokk ci élection yi gis nga bés bu bàyyee bés bu ko bàyyee def xam nga kañ lay comprendre bés bu ñu valide candidature yi ba pare lay soog a xam candidat Ousmane Sonko mais fi mu toll nii nu ko xam. Hmm. déedéet mënu ko xam de bàyyil ba mu valider ba pare. Hmm, no bàyyil ba mu valider ba c'est que lenn moo am xam nga soo ko dafa yor lenn. Ah. xam nga muy lan. Mm-hmm. ma jigéen la muy ma jigéen. comprendre nga maanaam ku mu joxoñ yow te loolu moom mooy ki nga xam ne moom la ko suñu borom defal ci jamono jii ñu toll. Hmm. loolu nag da nga koy mën a nangu li gën nag ci ki nga xam ne mooy président Macky Sall. parce que sonk taxaw na publiquement ne tu topp kenn te man gëm naa ni sonk ku ko fal du topp njabootu président Macky Sall. Hmm. mais bu ko fal bu ko bu ko defut xañ ko ko kii ñëw dana leen topp. te kii ñëw ci barakaadu sonk lay jàlle. Hmm.